mbokki internet yi ñu teewlu ci seen site moo 1 de l' actualité sur mobile euh, Sénégo ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd geek topp gi nga xam ne jamono ju ne dañuy dikk ak yéen ci loo xamante ne soxal na actualité réew mi wala bitim réew ba tax na ku ne xam na ni jamono ji ñu ngi ci élection locale yu ñu jëm ci 23 janvier bi candidat gu ci nekk yaa ngi dérouler sa programme tey nag kin koy sëkkal ci waxtaan wi miin ngeen ko ci langue politique bi ci réew mi muy docteur Malick Diop yàlla dogal ci élection yi ñu jëm ak coalition benn bokk yaakaar moom mooy seen directeur de campagne nekk ci liste bi troisième position mais en même temps ci fii di commune Fann Point E moom la ñu investir comme tête de liste bi fi nuy dooree ak moom ci jotaay waxtaan wi ndax gis nañ ni docteur euh, jamono yi candidat gu ci nekk yaa ngi wër di def ay tournée di def ay visite de proximité kenn ku ci nekk ci sa façon naka ngay séduire askan wi ci say euh, programme tey ami mi-parcours ci bi ñu duggee ci euh, campagne bi lan lañu mën a am comme xibaar par rapport ak tolluwaayu liggéey bi ak it tey lan ngeen jàpp ni tey jii nii war ngeen ko mën a dalalee xelu askanu maanaam ndakaaru gi ngir ngeen mën a jot mairie ndakaaru bi Medina maa ngi lay nuyu di rafetlu sa liggéey di rafetlu liggéeyu Sénégal yëpp euh, ci bépp fànn boo xam ne dafa intéressé doomu Sénégal di nuyu doomu Sénégal yi ci réew mi ci biir réew mi ci bitim réew di nuyu spécifiquement également doomu Sénégal yi nga xam ne ñi ngi ci Ndakaaru nekk ci également Fann Point Amitié bi ñu nekk actuellement nii nii nii euh, damay tàmbali rek di préciser donc effectivement euh, damay. directeur de campagne euh, benn Bokk Yaakaar ville de Dakar effectivement troisième sur la liste proportionnelle de la ville de Dakar euh, nekk tête de liste euh, proportionnelle Fann Point commune Fann Point Amitié li ñuy jàpp rek mooy ñun bi ñu jëlee en charge li ñu naan commune fa enfin bi ñu naan ville de Dakar ci mbirum liggéey fi ñu tàmbalee mooy déposer suñu liste déposer liste bi à temps ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk liste proportionnelle bi muy ñu ñoo xam ne ay personnalité lañ ku si nekk sa secteur bi nga xam ne moom ngay yëngu ñii ñi ngi ci gouvernement bi euh, jàpp naa ne soo xoolee bu baax am na euh, ministre de la femme mi ngi ci biir Seydou Gueye porte-parole du gouvernement mi ngi si biir et cetera euh, maître Ousmane Seye Euh, ci biir ràññee nañ si euh, actuel adjoint au maire de la ville de de de Dakar Mbacké Seck ñu bëri daal ñu ngi si biir. ce qui n'a pas été facile ce qui n'a pas été parce que bu xoolee kenn ku ne ci yéen tamit. Uh-huh. moom rek doy na sëkk tey jii nii euh, ci wàllu taxawaayam. ak ci wàllu ndombal tànkam. waaw loolu loolu mooy wane nag tamit richesse su liste bi parce que ku ci nekk ci ñi ma cité ku si nekk mënoon na diriger listu Ndakaaru donc dafay loo xam ne lu am solo la léegi nag ñu tànn vraiment Abdoulaye Diouf Sarr nga xam ne profilam ak parcours am moo ko may tey jii nii amul benn benn benn benn euh, candidat tey bu am niveau boobu en tout cas en terme de profil en terme d' euh, d'expérience créewul benn frustration euh, c'est-à-dire ci choix bi non un choix un choix il est important d'abord mais xam nga bu ñu tegee ki nga xam ne tey sur le plan de la base politique parcours ak profil gis nañ ne moom lokomotive la ci euh, ci ndakaaru wax dëgg yàlla ñëpp dañu d'accord ne kii suñu ko suñu ko jàppalee suñu ànd moom macha allah ndakaaru dina am beneen xar xar euh, xar kanam donc loolu ñëpp euh, d'accord nañ si. nga baal ma ma bàyyi la nga yeggali boo ma kamee c'est juste que gis nañ ay frondeur yàggul dara gis nañ ku mel ni Mame Mbaye Niang ci parti bi la bokk ak ñeneen. waaye mel na ni danoo weddi tey jii ni tabb gi nga xamante ni njiitum réew mi tabb na ko Abdoulaye Diouf Sarr moo tax ma duggoon ak yow foofu noonu ah comprendre naa maa ngi doog comprendre li nga bëgg a wax non ci Benno Bokk Yaakaar dañuy jàpp lenn rek mhm. ville de Dakar dafa am benn list moom mooy liste mouvance présidentielle di liste Benno Bokk Yaakaar muy list bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr moo ko dirigé liste des yëpp liste opposant lañ en tout cas nu ñu jàpp ne ba tey ñu ngi ci parti bi jàpp ma ne ma su fekkee ne sur le plan local la la ñu wax mhm. loolu ñu jàpp ne c'est benn list mouvance présidentielle muy listu Benno Bokk Yaakaar ñi si des yépp listu opposition lañ ko jàppee ñun en tout cas ci liggéey bi ñu def euh, ñaareel bi tamit ci liggéey bi ñu def euh, ñu xam ne boo tàmbalee liggéey programme mooy njëkk moo tax ñu am liggéey boo xam ne candidat bi ñëw génnee li mu naan vision vision am naka la gisee ndakaaru ci juróomi at yi di ñëw toog ak ay kàngam yoo xam ne ñu ngi jógee fépp jógee ci société civile jógee également euh, ci euh, milieu politique partout catégorie socio-professionnelle ñëpp daje ñu xool lan mooy seen mbëbët xool lan la ñu proposé pour programme ville de Dakar ci loolu nag damay rappeler tey que listu ville de Dakar am na ñoo xam ne société civile lañ nekk bu ma jëlee présidente bàjjenu gox yi muy Ndeye Fatou Diallo mi ngi ci listu Benno Bokk Yaakaar ville de Dakar bu ma jógee di ODCAV président ODCAV Momar Lo mi ngi ci listu Benno Bokk Yaakaar ville de Dakar ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey bokkuñ sax ci langue politique bi mais gis nañ que ne Abdoulaye Diouf Sarr war na mun a euh, diriger cette locomotive bi nga xam ne dafay changer Dakar ci loolu ñu teg benn pôle scientifique que dirige le professeur Mavloud jaxate qui est sur le plan national comme international ak ñooñu ñëpp nga xam ne ñoo si yëngu génnee li ñu naan programme bu ñu tuddee Dakar bu bees voilà c'est important parce que askan wi li ci ëpp mbumbaay beeg yeneen yi la ñuy gën a toppee homme politique yi ci njàngatu ñenn ñi te li gën a am solo mooy ki ngay topp war na laa convaincre ci ay programme yu yenu maanaa parce que ab mairie du caaxaan ndax neuf domaines de compétence secteur gu ci nekk nga war a satisfaire besoin askan wi c'est important kon ngeen eh, indil ñu loo xamante ni tey jii moom ngeen di convaincre askan wi kon ñu jublu ci loolu mais Seydina waaw <laughs> <laughs> nga wax c'est tellement li nga wax que sur six cent une collectivités territoriales amul benn bu ci toll nii Ndakaaru collectivité territoriale boo xam ne soixante milliards lay drainer Ndakaaru nekk quand même une euh, métropole boo xam ne macha allah sur le plan international métropole la boo xam ne dañ ko ci ràññee waaye ñu gis que ne 2009 ba léegi le grand problème mooy nit ñi ñëwuñ ak programme pour diriger ville de Dakar dañuy ñëw rek ne ah kii des outils la boo xam ne dina ma permettre ma xeex état alors que état en réalité ville commune ñooñ ñëpp démembrement de l' état la cest ci état la ñu bokk donc mënoo bokk ci état di xeex état donc c' est est important ci cohérence boobu tamit ñu leeral ko doomu ndakaaru donc moo tax ñun secteur boo xalaat tey jii nii dugal nañ ko fii ci programme bu ñu ne bu ñu ooyee Dakar Dakar bu bees damay joxe yenn élément yu may essentiel yu essentiel rek voilà donc ci dakaar bu bees ci Dakar bu bees kon dangeen fa fas yéene beesal Dakar ah oui oui dañu beesal Dakar parce que xam nga ne xam nga ne depuis 2009 enfin depuis 2012 sax mën naa président de la République euh, nekkee au pouvoir ba léegi la partie locale ki concerne Dakar ville de Dakar du ko du du du Benno Bokk Yaakaar ma ko yore donc dañu bëgg tey mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar Euh, diriger Dakar ci juróomi at yi di ñëw non seulement mais beesal Dakar indi li ñu naan Dakar bu bees ci tabax ci jikko ci set ci ci ci kaaraange fépp loo xalaat loo xam ne ci ci ci xëyu ndaw yi ci jigéen yi yooyu yëpp ñu dugal ko ci Dakar bu bees ci également li ñu naan une manière de penser une manière de voir il faut que tey ñu dellu si à un donné ba ñu gis ne doomu ndakaaru dañu bëgg seen seen seen ville dañu bëgg ville bi dañu comporter comme il faut pour que ville bi baax képp ku sat sànneeti sax kayit ñu xam ne ah lii de du comportement waa ndakaaru mais docteur est dina yomb parce que boo xoolee ndakaaru superficie gu jox cinq cent cinquante kilomètres carrés une grande partie de la population ñëpp a ngi Dakar ñëpp a xëyee Dakar ndax Dakar saturé wu ndax tey jàpp ngeen ni di ngeen mën a réussir défi boobu noonu docteur. Seydina dama lay joxal benn exemple simple et qui concerne Abdoulaye Diouf man Malick Diop faculté de médecine et de pharmacie bii nii UCAD. foofu laa jàngee bi ma fa nekkee COUD dafa am nu mu meloon ci salte ci li ñuy lekk ci manière bi ñu koy gérer et cetera. nit ñi dañ doon wax ne COUD kenn mënu ko changer day jaxasoo rek parce que étudiants yi lii étudiants yi lee alors que étudiants yi defuñ dara ñun ñëpp ay étudiants lañ woon <laughs> étudiants lañ ba jànge jàngee université wala jàngee feneen ñëw mujj nekk ci ci ci sphère yi donc amul étudiant bu bu ñu mun a catégoriser fenn donc dañ leen di catégoriser fenn alors que gestionnaires yi à ce moment donné ñoo posé woon problème COUD bi ñu ko dénkee Ablaye Diouf Sarr de c'était c'était c'était en 2012 gis ngeen totalement réforme yi fa ñëw tey boo duggee kudd ni mu mel xar kanamu kudd méngoo nag tey yenn yenn yenn euh, campus sociaux yi nga xam ne ñu ngi partout dans le monde boo demee ba tey problème yaa ngi des ci bi non campus social campus social problème daf ci am c'est normal boo demee France am na mhm. boo demee États-Unis am na boo demee Maroc am na foog mu am mais li ñu li wérte woor mooy ku dugg kudd tey da ngay kontaan parce que naturellement y la verdure y a la propreté ak leneen ak leneen donc yooyu yëpp réforme yu yu mag a mag yooyu kan moo ko indi c'était Abdoulaye Diouf Sarr te bi muy ñëw dañ ko ne woon loolu mënul nekk c'est pas possible comme question bi nga posé lañ ko wax loolu est-ce que mën na nekk mën na nekk mais il faut que gestionnaire yi doomu Ndakaaru xam ne ñii nekkaluñ fi seen bopp nekkaluñ fi pour ay xeex état ak yooyu dañ fi nekk pour xool ensemble naka la ñuy defaree dëkk bi ci loolu ñu ne dañuy def lu ñu naan conférence territoriale chaque année conférence territoriale nag day loo xam ne ku ragal ñu critiquer la doo ko def parce que territoriale mooy lan da ñëw oo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mbirum faj oo les consommateurs oo les handicapés oo ndaw yi mag yi système euh, financier décentralisé o oh, ñi nga xam ne ñoom ñooy artisans yi o oh, marchands ambulants yi et cetera toutes les catégories socioprofessionnelles nga boole leen o oh, architectes yi o ñi nga xam ne ñooy yëngu ci mbirum littoral waxtaan nañoo ak ñoom keroog toog waxtaan nañ waxtaan ak Pierre Goudiaby Atepa parce que euh, littoral bi ni mel surtout surtout point boobu parce que boo xoolee image yu Dakar on a une image macrocéphalique c'est loolu ce quelque chose boo xamante ni ce important ñu tenir ko compte mais ñi ngi ciy tenir compte bu baax te ñi ngi ciy liggéey balaa balaa ñu ciy yegg su ma la waxee ne tey mhm. am na lu bëri li ci programme bi par exemple. c'est important même boo ñu ko mënee tënkal même boo ñu a xam maanaam santé da ngay santé ñaar la prévention ak offre de soins boo jëlee offre de soins tey nga gis ndakaaru ni mu laloo dañu ne tout de suite il faut reprendre en main les investissements de la ville ci mbirum offre de soins ville da ko doon fàtte souvent mooy lan construire d'autres centre de santé modulaires xool naka ngay gën a spécialiser yenn centre de santé yi parce que centre de santé yi dafay jël en charge des communes boo ko daggee di 17 la biir biir biir Ndakaaru mais boo ko boo ko boo ko boo ko xaymaa très souvent dans des spécialités données dafa am ñoo xam ne dañuy dem directement si si établissement public de santé de niveau 3 yenn hôpitaux yi ñu ne ville de Dakar war na ko mën jël en charge parce que ville de Dakar war na mën jël en charge boo jëlee téeméeri doomu Ndakaaru euh, juróom-ñaar fukk yoo xam ne ci structure de santé ville de Dakar la ñu la ñu nekk ñu jël ñu ne par exemple boo jëlee boo boo jëlee euh, dëkk bu mel ni parcelle nga xam ne moom moo fi gën a populaire mook mook Grand Yoff ñu ne parcelle c'est vrai am na benn centre de santé bu tudd maam Abdoul Aziz Sy mais parcelle dafa soxla tey benn établissement de santé de de niveau 3 boo xam ne moom mooy ëpp dayob centre de santé boobu établissement public de santé de niveau niveau niveau 2 boobu ñu fexe ba tabax ko fa sur la base du budget de la ville de Dakar loolu dafa bokk tey si suñu suñu suñu suñu aspect suñu suñu investissement sanitaire réformer également euh, fi ñu naan euh, Abass Ndao nga xam ne structure de santé boo xam ne euh, président du conseil d'administration bi c'est le maire de la ville de Dakar ñu war a liggéey liggéey boo xam ne dinañ gën a defar Abass Ndao pour mu polariser zone bi nga naan plateau ak des spécialisation yoo xam ne dafay nekk ci biir structure ba polyclinique la même naka naka noonu surtout l' aspect mère à enfant et cetera donc yooyu yëpp tey aspect mutuelle de santé est ce que am ngeen lu ngeen sóoraale parce que tamit bu leen fàtte maanaam couche défavorisée bi nga xamante ni ñoo yeewoon Ndakaaru mais de manière permanente cette mutualisation axée sur la couverture maladie universelle de sorte que ñu am un lien entre ville de Dakar ak CMU agence nationale de CMU boo xam ne waxtaan nañ ci ba pare de sorte képp koo xam ne ndoomu ndakaaru nga nga mën a am une prise en charge réelle sur le plan de de structures de santé de la ville ak yoo xam ne dañu signé ay convention ak ay hôpitaux yoo xam ne mi ngi biir ndakaaru de telle sorte que ñooñu tamit ñu bokk ci prise en charge boobu parce que ñun du ñu toog rek ne dañu jox ñëpp euh, santé comme ça te teguñ ko si dara ñun ci leer nañ lañ koy teg lu leer nañ nga xam ne kii c'est un plus un égal deux day loo xam ne mën nañ ko xam nañ ko yàgg nañ ko def xam nañ tamit nu nuñ ci nuñ ciy liggéeyee la prévention également zéro à cinq ans mère à enfant prise en charge soo xoolee tey euh, maa ngi wax rek ne tout de suite bàjjenu gox bi nga xam ne moom mooy président des bàjjenu gox mu ngi suñu liste donc am na lu bëri dañ ko liggéey ci surtout la prise en charge mère à enfant éducation la même chose donc les les les investissements yi nga xam ne dañ koy am ci structure de de de yi nga xam ne ñoom Euh, ñun suñu compétence jox na permettre nañu ko mooy lycée yi ak yi nga xam ne les 19 communes en euh, dañ ci ànd ak ville de Dakar mooy yi nga xam ne mooy CP ba CM2 yooyu yëpp. infrastructure da ngay da ngay da ngay defaraat salle de classe yi defaraat euh, defaraat toilettes defaraat espace yi nekk ci biir mu am des espaces jardin espace de jeu defaraat ay ay salles yoo xam ne euh, nit ñi dinañ ci mun a mun a football mun ci basket mun ci def sport delloo si lu ñu naan sport à l'école euh, uniforme yi également ñu jël ko en charge par par rapport a toutes les structures yi nga xam ne moom mooy structure euh, ay ay école ci biir Ndakaaru environnement bi environnement bi la même chose parce que y a trop de pollution à Dakar mhm. dañ leen koy faral di ŋàññee comment gérer tey jii nii environnement Dakar préserver ko face à la pollution waaw d'abord euh, la première chose qu'il faut c'est que pollution lu ko lu ci bëri li koy indi embouteillage ñu ngi koy jiñ oto yi bëri Ndakaaru de te amu leen ci pexe waaw waaw pexe am na ci parce que pexe tàmbali na Euh, moo tax ma ne ndakaaru suñ ko bëggee soppi rek il faut que ñu nekk en bonne intelligence avec l' état tey état dans le cadre de du plan Sénégal émergent qu'est-ce qui a été identifié comme problème public majeur un des problèmes publics majeurs moo nekkoon mbirum embouteillage cent milliards lañ ko évaluer par an li nga xam ne structures yi dinañ ko perte ci ay mbirum embouteillage beneen bi boo xam ne c'est matériel comme immatériel mooy l'augmentation du coût du lo du loyer ñi nga xam ne dëkk nañ Kër Massar wala dëkk nañ euh, Diamniadio et cetera pour ñu ñëwaan liggéey si Ndakaaru dafa doon métti donc sur cette macrocéphalie là mais sur ce point nga baal ma c'est parce que ñu bëri nee nañ yéen ñii nekk Ndakaaru te ñu dénk leen yenn gestion yi lu ci mel ni loyer bi da ngeen di préférer jox étranger ñu dëkk ci bëri bi baax yi que ñi nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo Dakar. comprendre ma bu baax maanaam étranger yi daanaka ñoom ñoo accaparé li ci ëpp tey jii nii milieu bi. Euh, ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo nar rek yeewoo dakaar euh, dañuy am jafe-jafe am euh, maanaam dëkkuwaay bu baax maanaam point bi ngeen non loolu vue de la rek mais du loolu moo ëpp solo mhm. loolu vie de l'esprit la parce que mbirum loyer dafay dafa dafa am yoon bu mu war a jaar mhm. dafa am surface corrigée suñ jëlee surface corrigée bi c'est sur cette base là qu'on détermine le loyer maintenant am na yenn éléments yoo xam ne ministère du commerce génnee na ko surtout mbirum caution bi ñu wàññi durée bi et cetera donc loolu yëpp ay avancé la ci li nga xam ne liggéey na état fexe na ba à un moment donné dindi ay taux si loyer yi mais ça ça ça n'a pas réglé le problème c'était conjoncturel lii régler problème bi réellement mooy régler euh, euh, créer des zones de vie moo tax état créer d'autres zones de vie Diamniadio zone de vie bu bees la aujourd'hui Euh, le parc urbain bi nar a nekk Lac Rose zone de bi bu bees la d' ailleurs VDN bi VD VDN beneen bi bi nga xam ne moom mooy. Ah, dem alors yëpp bi ngi ci Dakar bu bees bi lu ngeen waaj la. non non non non non non bul bul jaawale yaa ma posé question boobu. ñun du ñu diggee loo xam ne du suñu compétence. dam la ci répondre comme question parce que da nga ma ko posé loolu mhm. état central la. Mhm. maintenant ñun dañu nekk en jonction avec l' état central. train express régional bi ngeen di gis noonu lan lay indi lu bees cent quinze mille personnes ñoo siy dugg. par jour euh, par jour cent quinze mille personnes yooy ñii ñi ngi doon dugg car rapide ñii ñi ngi doon dugg taxi ñii ñi ngi doon utiliser seen oto et cetera donc ñu jàpp ne tey Sénégal war nañ toll foo xam ne nit ki war na mën a wàññi parce que quarante mille véhicules chaque jour lañu ñu xam nga su fekkee ne dañu euh, immatriculé quarante mille véhicules ça pose un problème énorme mm-hmm. parce que problème boobu mooy loo defar defar tali soo defaree ay autopont parce que Sénégal ñu ngi defar ay autopont yu bees ay plein de trucs tali yu bees yu bëri ci biir Ndakaaru état defarna ko fi mais ça n'a pas réglé totalement le problème léegi ñu ne nit ki mën na yore tey véhicule am gaare ko këram dox dugg BRT jël BRT yóbbu mu mu mu jël ko par exemple Rudis mu yóbbu ko jonction fële ca Colobane mu jël Colobane otoom dem jam Diamniadio sans aucun problème wala mu jógee ñaajo ñëw ba ba ba ba ville de Dakar ba fi ñu naan euh, gare de Dakar sans avoir aucun problème en termes de de de d'utilisation de certains véhicules donc dina wàññi déjà véhicules yi nga xam ne danañ ko utiliser de manière permanente loolu ñu koy retrouver dans beaucoup de métropoles mais surtout loolu il faut que ville de Dakar te mi ngi ciy liggéey bu baax fexe ba ndaka waa Ndakaaru mën a am des éléments de subvention sur la base de l'entrée dans ces dans euh, dans ces euh, ce euh, transport modulaire parce que c'est c'est quand même multimodal comme multimodal la di nga utiliser BRT jógee foofu utiliser TER et cetera donc comme c'est multimodal ñu xool naka la fexe ba ñun accompagner ces ces ces ces ces structures de de transport multimodal de telle sorte que doomu Ndakaaru mën ci gis seen bopp. ok dernier point bi pour ñu génn chapitre boobu ndax euh, euh, dañuy dàkkanteeg waxtu wi da ngay gis ni tamit mal gouvernance bi souvent dañ koy décrier ndax indi woon na coow ci. ville de Dakar ci wàllu kees yi eh, lan ngeen ci wàcc pour dalal xelu askan wi par rapport à la bonne gouvernance bi ngeen xamante ni moom ngeen nar yore. ñun lépp dañ ko nar a teg ci transparence te bu ma nee xam nga bi ma njëkkee wax dama ne conférence territoriale conférence territoriale boo boolee ñëpp ñëpp toog ñu pencoo ko ñu pencoo ko ku ci nekk ne ah man de secteur bi gis naa ne keroog dañu dajeek les les les femmes les femmes jigéen yi nga xam ne euh, ñi ngi ci transformation ñii ñi ngi ci mbirum xarala ñii ñi ngi ci secteur d'activité yëpp ñii ñi ngi ci napp ñoo ñëpp ñu boole leen ne leen lan mooy seen problème ku si nekk génne identifier ces ces ces problèmes on en a discuté même avec euh, boobu ministre microfinance mi ngi fa woon euh, ministre également de la femme et cetera ñu ne si waxtaan bi dañu xool lan mooy difficulté majeure yi ñoom difficulté majeure yi ñu am mooy euh, le le le financement te ñu ne ñoom bu ñu duggee ci financement taux yi ñu am dafa élevé torop dem na ba ñeen ñoo xam ne vingt pour cent la ñu am ci ci ci ci ci yenn taux yi donc muy poser problème énormément de problème pour ñoom seen liggéey parce que di nga euh, di nga leb euh, téeméer fay fay ñaar téeméer donc muy poser problème ñu ne ci loolu ñun dinañ fexe ba am euh, une réforme bu ñuy def ci fonds bi nga xam ne moom moo nekk ville de Dakar dugal également ci budget budget ville de Dakar 60 milliards ñu dugal benn fond boo xam ne dina fexe ba wàññi bu baax a baax a baax euh, li ñu naan taux yi dem nañ ba ñenn ñi mën nañ yegg ba taux yoo xam ne dinañ dem ba 5 pour cent ñeneen ñi nga xam ne ils sont en elles sont en difficulté mun nañ fexe ba taux yi ñu fexe ba jegel jegel ko zéro parce que taux bi moom c'est très simple il faut que quelqu'un paye. Ville de Dakar ne man loolu dinaa ko fay. donc yooyu yëpp dafa li bokk ci li nga xam ne mooy li ñu li ñu li ñu naan conférence territoriale boo boo boo waxtaanee secteur d'activité yëpp kii ne man euh, hôpital laa soxla kii ne man dañ ma war a dugalal xaalis si taux yi kii ne financement laa soxla kii ne dañu war a defaraat feu tricolore yi parce que dañu bëgg a reprendre en main tous les feux tricolores de Dakar ñii ne éclairage public bi dañ ko war a euh, gën a yokk ci secteurs yi secteurs yi pour sécurité ñii ne dañu war a en relation avec l'agence de sécurité de proximité, recruter beaucoup d'agents au niveau de la sécurité de proximité. Comme par exemple, si Yoff, il y a 170 agents qui ont été Ablaye Diouf Sarr, qui ñooy été di la sécurité au niveau de Yoff et au niveau des plages naturellement. Donc, loolu yëpp ñu ne, si nous ba pare de ah, budget de 60 milliards, là, nous avons 100 conseillers. ñu soog a def li ñu naan débat d'orientation budgétaire te débat d'orientation budgétaire dañ koy basé si la conférence territoriale donc dañ siy boole askan wi bu ñu paree ñu voté budget bi bu ñu voté budget bi à la fin on a ce qu'on appelle le compte administratif lan la maire en tant que coordonnateur demandé au comptable public su ñu paree ñu dellu si ne maire at bi yëpp lii la demande au comptable public. mbaa du ngeen laaj lu dina loolu loo tax ba ne. Mhm. li ñuy transparence bi la ñu liggéeyee noonu. Mhm. dañu toog doomu ndakaaru yëpp toog. ñi ne le maire yow lan nga o au comptable public pendant un an mu ne ah man de def naa lii demande naa lii demandé naa lee ñi nga xam ne ñoom au départ ñoom ñoo ñëwoon ci conférence territoriale bi ñoom ñoo naan ah yow de fii nga waxoon ne foofu ngay dugal xaalis bi mais ah feneen nga ko dugal wala ñoom ñu ne ah. fii nga waxoon foofu nga ko dugal mais foofu nga ko dugal donc ça dire que tenir nga sa promesse donc loolu mooy d'abord benn contrôle aussi bien a priori qu'à posteriori boo xam ne population yi dañu siy dugal seen bopp xam nga en général c'est c'est c'est c'est c'est les contrôles de corps de contrôle classique ñoo koy utiliser mais ñun dañu bëgg ci contrôle boobu que population yi bokk ci contrôle boobu Dakar bu bees ñu gis fan yi ay violence physique donte sax am na ay violence verbale ndax tey jii nii campagne gi ñu jëm riime na tey jii ak violence surtout que yàggul dara gis nañ benn cadre unitaire ci de l'islam proposé leen tey jii nii euh, document boo xamante ni dafay fexe yéen ñëpp ngeen engagé pour mën a signe que ni tey jii ni di ngeen promettre nit ñi dinañ def une campagne sans que pour autant que mu am ay euh, violence tey jii nii nu ngeen jàngatee violence yi ak yan pexe ngeen ci nar a xalaat parce que il y aussi de la sécurité tey jii ni de la population. ñun on est contre forme de violence que muy jógee. mouvance présidentielle ko muy jógee opposition ko muy jógee feneen violence warul am politique politique lii rek la da ngay teg sa programme keneen teg programme la gis nañ sax ñenn ñoo xam ne bi ñu tegee suñ programme xaar ba mbir mi ne këpp ne jonn këtt ne jonn parce que ñun balaa lépp di tàmbali dañu ñëw teg programme le le le le le le maire euh, Abdoulaye Diouf Sarr toog devant toutes les sénégalaises et les sénégalais ne leen benn par benn voici ma vision voici les dix axes stratégiques bu may nara a en œuvre avec les équipes pour Ndakaaru voici les cent engagements yi nga xam ne jël nañ ko ci secteur bi ci secteur B ci secteur B te xaalis bi nii la ñu xalaatee ne lañ koy amee comme financement donc lii xeex bi fii la xeex bi du muscle wala dóorante wala non xeex bi fii la nekk ci xel la ci xel nag vraiment Dakar bu bees ci foofu la ñu nekk donc képp ku dugg ci mbirum violence wax dëgg yàlla ñu jàpp na que euh, dugg nga ci loo xam ne ñun dañu koy condamner fermement man personnellement j'ai appelé Cheikh Tidiane si man personnellement. bu unitaire. Cheikh Tidiane Sy amul kenn ci yéen ku jël engagement signé say jini seen chart du man ci sama bopp Cheikh Tidiane si maa ko oo ne ko Cheikh Tidiane. Mhm. dama dégg mbirum cadre unitaire bi nga xam ne yaa ngi koy mettre en. en œuvre ñun contacté wu la euh, ñun euh, direction de campagne euh, ville de Dakar contacté wu la wu ñu ci loolu mu ne ma ñun signature ñëwagul ci loolu dañu contacter d'abord les leaders de coalition ma ne ko ça c'est très bien mais contacter les candidats contacter les candidats yónnee nuñ les documents effectivement il m'a envoyé le document bi ma envoyé document laa ko ne nous à 100 pour cent nous sommes d'accord sur loolu nga xam ne ngeen bëgg def mooy charte bi nga xam ne ñun si sañ bopp dinañ ñëw avec le candidat signé ko bu ñu ko signé nag incha allah euh, dinañ euh, dinañ leen won carrément ne bokk bokk nañ ci loolu loolu loolu. signé ngeen wala signé gu la dama ne. Hmm. ñun. Hmm. dañu demander à ce que ñu yónnee ñu le document. document bi ñu yónnee ñu ko. Mm-hmm. bi ñu ko yónnee ñu liir ko gis nañu gis nañ ci suñu bopp ñu ne dañuy ñëw en délégation toog ak ñoom signé ko officiellement bu ñu ko signé officiellement. kañ prévoir loolu def euh, wala waaw loolu moom ci semaine bii dinañ ko def. Ah. ci semaine bii dinañ ko signé. candidat bi dina ñëw signé pour wane ne ñun non violence la ñu prôné à 100 pour cent au niveau du pays. fii nii jeexale yow yaay directeur général agent sénégalaise des exportations. ndax mm-hmm. actualité bi fan yii. li xew Mali la te sanction jib na seen kaw moo xam ci CEDEAO bi ak it France sax ànd na ci tëj nañ frontières yi te ku ne gis na ni tey jii nii taxawaay Sénégal ak Mali ci wàllu demalanteeg dikk bi ak surtout ci wàllu économie bi ndax amul impact ci suñu économie. waa nañ ci waxtaanee rek parce que euh, Mali dañu dañu suñu suñu frère lañ maliens yi comme maliens suñu frère lañ euh, nekk nañ ci ay difficultés. difficulté yoo xam ne euh, lié au coup d'état euh, vraiment am na beaucoup de problèmes foofu euh, CEDEAO tamit am na nu ñu nu ñu nu ñu doxale ci ci li nga xam ne moom moo xew gisoon naa sax ci échange yi ñu doon wax ne am na yenn yenn aspect des échanges ça n'allait pas être pris en charge dans le cadre des sanctions mais j'ai vu également que Mali aussi ñoom dañu braqué wu dañu tëj carrément Euh, ne ñoom de toute façon échange tuñ tamit ñoom ak CEDEAO donc loolu euh, je pense que nañu continuer di ci waxtaanee ba trouver une bonne solution suñu trouver une bonne solution rek incha allah euh, li gën ay daal nu mu tëdd jàmm moo gën ay man c'est c'est mon principe majeur xëy na CEDEAO ñoom li ñuy def am na fu ñu ko teg Mali Euh, répliqué nañ. impact économique bi en tant que. ah oui oui dafay am impact économique xam nga c'est notre premier. c'est notre premier partenaire perte yi nga xamante ni mën nañ ko envisager tey. ñun ñun Mali c'est notre premier premier partenaire à soo xoolee ciment euh, produits pétroliers transformés yooyu yëpp Mali la jëm donc euh, premier partenaire nag des deux côtés la mën problème parce que effectivement mën nga am yow perte de recette yow pays exportateur bi mais pays importateur bi li ngay yóbbu foofu dañ koy soxla. parce que su fekkee ne danga daan indi euh, pétrole essence sur place indeetoo dafay am pénurie donc loolu manque à gagner problème la pour malien yi boo doon indi ciment di ko yóbbu foofu yóbbootoo ko problème la tamit pour malien yi mais tamit problème la pour ñi nga xam ne ñoom ñoo koy exporter euh, venant venant du Sénégal donc moo tax ma ne euh, juboo bi daal moo gën ñu xool waxtaan malien yi xoolaat seen copie CEDEAO bi tamit peut-être xool naka la ñu mën a assouplir di mbir mi ba ñëpp juboo daal man daal loolu mooy sama sama point de vue. docteur ñu ngi lay jaajëfal sa kàddu bu mujj. sama kàddu bu mujj maa maa ngi leen di oo doomu Sénégal le 23 incha allah le 23 bii di ñëw muy le 23 janvier le 23 janvier nag damay rappeler ne ñaari vote mooy am képp ku nekk ci benn commune di nga vote ñaari yoon parce que loolu tamit ñu bëri dañ koy fàtte da ngay ci benn urne bu njëkk bi. voté pour candidat bi nga xam ne moom moo nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ci commune bi muy benn xob nga voté benn yoon après ñu ne la votel pour ville de Dakar donc deuxième vote bi day am tamit parce que loolu c'est la première fois aussi ñu koy def pour urne urne de ville daanul am urne de ville boobu nag deuxième fois bi nga voté waat voté pour Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Diouf Sarr ak ñi mu àndal man sax ci laa bokk donc ak ñi ma tudd ñoo ñëpp ci biir lañ mbokk ñi ngi ci liste bi votel ñooñu su ngeen leen votelee xalaat ne dinañ changer vraiment euh, nu mu tuddati xarkan nu mu Dakar indi dakaar bu bees parce que on est à la croisée des chemins ñun li ñu tax a jóg mooy liggéey en tout cas nekkuñ fi pour xeex état parce que loolu du suñu rôle ñun suñu rôle mooy liggéeyal doomu Ndakaaru E su ngeen ñu votelee la 23 incha allah dinañ liggéey liggéeyal euh, ndakaaru ndakaaru jëm kanam Sénégal jëm kanam. kon mbokk yi ñoo ko déggandoo mu nekkoon sunu gan docteur Malick Diop nekk directeur campagne coalition Benno Bokk Yaakaar moom lañ sekkaloon jotaay waxtaan wi àndoon ko ak suma caméraman technicien Seydina moom mooy nekk ci caméra bi ki doon wax nekk euh, Yamoussa euh, di leen jaajëfal ci ànd geeg topp gi.